xam tey la àdduna bi yëpp ñoom ñooy célébrer li ñuy wax journée mondiale du théâtre ñu koy def chaque le 27 mars bu bu jot si année yi dañ koy def donc comme ni ma ko waxee woon sànq si tubaab rek euh, région de Diourbel dérébewul si règle boobu donc boo demee fee sa Diourbel en tout cas au centre culturel ñun ña fa nekk di amal benn euh, atelier de théâtre boo xamante ne nii day dure si cinq jours mais aussi fii si Mbacké waa caada collectif bi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci wàllu théâtre ñu amal ñoom tamit ñuy def vraiment liggéey boo xamante ni man dama koy rafetlu parce que liggéey bu extraordinaire la ñu nekk di def en tout cas ñu ñëw fii ci Mbacké bu ñëwee Mbacké nag Jurbel la ñu ñëw parce que euh, région la région la bien vrai que na ñi ngi fii mais aussi ña nga fële parce que amul dara loo xamante nii ñu ngi koy def te man en tout cas boolewuñ ma ci ñu ñëw fii nag ànd ak acteur u Mbacké yi ngir euh, jëmmal li nga xamante ne nii moom mooy théâtre mais nag da ma laaj ci jafe-jafe yi nga xamante ni euh, Mbacké am département Mbacké am na ko mais damay faral di wax ne du Mbacké rek région bi yëpp ñoo ko am parce que bu njëkk dañu waxoon ne euh, région de Diourbel dañu dañu fort dañu dañu mën théâtre macha allah parce que trophée yëpp ñoom ñoo ko daan jël mais actuellement nii théâtre bi mi ngi commencé sooxee fii si si si si région bi jafe-jafe yi nekk fii nag moo nekk fépp donc man je crois que vraiment li ñu war a def mooy former formation bi parce que il faut xale yi professionnaliser wu am ay formation yu bari parce que li ñuy wax rek théâtre dafay évoluer taxawul figé wu sur place donc théâtre de scène bi nañu ko nañu ko gën a promouvoir moo ëpp solo parce que moi j'ai l'impression que ni film yi production yi ñuy def ci film dafa xaw a nasaxal théâtre de scène alors que théâtre de scène dafa nekk base boo xamante ni base bu solide la kon donc nañu gën a faral formation bi je pense que loolu lañ gën a mën def lancé waat théâtre bi fii si si si de Mbacké mais ñun en tant que ay ay administrateur am nañ ci cër mais aussi les acteurs ci boppam ñoom tamit dañ cee am boo xam te ni war nañ ko mën la culture mi ngi nekk xam na daaw daa ngi si sama wet daje nañ bërki démb rek fële ci maison de la culture Douta Seck ministère de la culture à travers direction bu ñuy wax la direction des arts e je salue par par euh, au passage Khoudia la directrice euh, de la de la direction des arts bi nga xamante ni en tout cas ñi ngi liggéey ñi ngi xayma benn benn ñi ngi nësal loo xamante ne nii en tout cas woon nañ ci ñëpp lañ ci woo acteur yi am ñi ngi yëngatu ci théâtre ñëpp lañ ci woo di nësal loo xamante nii bu sottee gëm naa ne seen jafe-jafe yi nga xam xamante nii acteurs culturels yi yëngatu ci théâtre amoon nañ ko jafe-jafe yooyu yëpp dina jeex wala bu jeexul aussi la majeure partie dina réglé wu incha allah formation nag man moo jiitu parce que am na ko wax léegi wàllum production mais pour man production dafa am lu ko jiitu parce que boo xamul dara mënoo produire il faut nga xam am luñu luñ la sol am lu nekk ci yow ba pare muy formation bi ngay soog a mën a produire après production day ñëw mais gëm naa ne loolu li may wax nii document boobu bis bu génnee ba pare ba liñ ci bëgg ba mën ministère liñ ci bëgg président accompagner ko ci te xam ngeen ne président moom mooy le le protecteur des arts et des lettres te ku nekk xam na alal ji nga xamante nii mi ngi koy yëkkati en tout cas di ko def si wàllum culture donc gëm naa ne document la boo xamante ne nii président ci boppam moom moo koy moom lay njëkk a neex donc loolu bu dikkee waxuma la wàllum production bi mais lu dul production sax incha allah dina réglé wu. nañu formé wu rek nañu xool naka la ñuy jëlee ji ay formation daaw da wax na ko am na ay formation yu muy nësal maa ngi leen di ja ma noppee di jaajëfal caada nag caada du ma noppee vraiment di leen féliciter mais aussi di leen encourager am nañ ay formation mais aussi direction des arts mi ngi seen ginnaaw mi ngi leen di jàppale mi ngi jàppale en tout cas ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu culture. jafe-jafe yi nga xamante ne moom la théâtre jàkkoonteel yaakaar naa comme ni ko sama nataango bi waxee léegi rek euh, lu mat juróom-ñetti weer si ginnaaw euh, direction des arts ci ndigalu ministère de la culture dañu dajaloon mboolem acteurs culturels yi moo xam nga nekk caada wala nga nekk arcos wala nga nekk foo xamante ne sa bokk si structure yooyu ñu dajee ñu waxtaanee jafe-jafe yi théâtre jànkonteel euh, ñoom ñu laaj ñu aussi ay solution ñun tamit ñu wax ay solution yoo xamante ne mën na régler loolu direction des arts jël loolu ñu fa waxtaanee woon dem tëgg si benn document ñu teg plan stratégique plan stratégique euh, pour la relance du théâtre donc euh, bërki demb ñu daje fële ca euh, théâtre Douta Seck donc valider document bi ñu war ko jébbal tey jii ministère de la culture pour mu jébbal ko njiitu réew mi théâtre nag jafe-jafeem dafa yaatu comme ni ko ni ko sama naataangooy waxee wax nañ formation lu bëri bëri mais man li ma wax moo am na lu jiitu formation moo l'identification donc il faut ñu identifier les acteurs parce que théâtre tey dafa doon métier boo xamante ku jóg rek ni man comédien laa ñi nga xamante dañuy def TikTok ñi nga xamante ne dañuy def ay kii si YouTube wala affaire yooyu yëpp ñëpp dañuy wax comédien alors que le théâtre euh, est un métier le théâtre se joue sur la scène moment ñu ngi ñu ngi wax théâtre jamono bi nga xamante ne théâtre verdure bi nit ñi ñëw nañ fi toog di seetaan am ñu toog fële di am ñu nekk fële si kaw di jouer leneen lu ñu mënti gis ak fu ñu ko mënti wale ça s'appelle pas du théâtre leneen la donc ñun ni bu njëkk ay groupe de théâtre daan nañ jóge fii di ko yóbbu bitim réew di fa jël ay trophées yu bëree bëri bëri théâtre bi ñuy defaan mooy théâtre bi nga xamante ni fees nag bi nga xamante ni ñu ngi ko war amal te ñu euh, tey jii daanaka lu mat ñetti at wala at mu ngi tàmbalee naax saay te yooyu bu ñu ko seetaanee dañuy dem ba dañu koy ñaaj loolu nag combat bu bu bu xaw a jafe la ndax sénégalais bi moom moo jàpp ne théâtre luy feeñ télé la liy feeñ télé rek lañ jàpp ne théâtre la alors que am na leneen lu gën a yaatu loolu donc identification bi dafa am solo donc ñu doog a ñëw ci formation bi parce que bu ñu formé acteurs yi yaakaar naa liggéey bi dina gën a yomb te Thiada mu ngi def liggéey bu am solo ci loolu maa ngi wax sànq ni am na benn projet bu ñu tuddee forme projet forme acteur nga xamante dafay formé du formé ci kii joué kase waaye dafay formé ci ñi nga xamante ñoom ñooy bindkat théâtre mooy écriture dramatique formé si sur la mise en scène forme ci ci gestion de projet naka la ñuy amee xaalis pour mën a produire suñu suñu bopp suñu théâtre yi donc formation boobu la caada entamé jamono bi pour mën a gunge acteurs yi ñu xam dëgg-dëgg métier bi ak naka lañ ci mën a dundee donc bu ñu ci àndee ak jàppale gi nga xamante ne ministère de la culture ñu ngi koy def jéego yu ñu ciy teg via la direction des arts donc euh, am nañ yaakaar ni mbir bi dina soppeeku quoi. le théâtre nourrit son homme mën naa ko wax ndax am na ñuy dundee théâtre te dundewuñu leneen lu dul théâtre malheureusement am na ñi nga xamante tey ñu ngi ci nekk te xamuñu yoon boobu xamuñu yoon boobu parce que tey groupe de théâtre dañuy judd fu nekk dañuy juddee fu nekk ñam na ñoo xamante tey xamuñu sax ni théâtre am na subvention bu ci war a jëm am nañoo ñoo xamante tey xamuñu ni si maire bi ñu dëkk am na koppar yu fa nekk yoo xamante ni acteurs culturels ñoo xamante ñoom waa théâtre si lañ bokk lii jafe-jafe bi mooy du ñu formaliser wu groupe de théâtre yu bëri bëri amuñu reconnaissance juridique xamuñu fan la koppar yi nekk xamuñu naka lañ ko war a mën a jëm donc loolu la caada di liggéey di woo acteurs yi à que ñu jox leen les informations qu'il faut Euh, Thiada mu ngi mu ngi siège am mu ngi koy déplacé fële si Sébikotane nga xamante ne dañuy gunge acteurs yi bu ñu ñëwee ñu jàppale leen si naka la ñuy bindee projet fan lañ koy déposé ak fan ak fan la ñuy kii malheureusement nag képp ki nga xamante ne da nga nekk sa ruq nga ngay def benn affaire nga jàpp ne yaa ngi def théâtre mënuñu forcer kenn mais en tout cas on appelle tout le monde ñu ñëw ñu ñu ànd liggéey boobu pour que nit ñi mën a dundee seen art quoi